Eh, Télé Sénégal. dañu sàcc sama tur. Télé Sénégal. dañu sàcc sama tur. ah yow rajo rajo FM Sénégal. waaw ah, kay FM Sénégal. alors salaamaaleykum Père Bécaye bu ñu waxee Père Bécaye xeer yëpp dem ci fédérateur maanaam kuy jubale. tey nga fekkee fi say frère muy ay say doom di rappeurs yeeg mbalaxmaan yi ku ci nekk boo fekkee wul ci doom ànd nga ak ñoom euh, euh, génération nan nga gisee initiative bu mel ni mu nekk 16e édition ak waa C'est la meilleure question que je me suis posée. Parce qu'au fond, c'est ça. ay jeunes rek ñoo nekk ci stade bi stade bi fees dell y a plus de vingt mille personnes ñu toog ci stade bi lan la dañuy football football boo xam ne amul coupe amul dara mais dañuy fo waaw. si si. ah foo moo xamante ne nii kenn du ci gagné dara mais liñ ciy gagné moo ëpp xaalis parce que dajale nañu ñëpp mbalax maan rappeur ay concurrent rek ñoo fi ne waaye effacé nañu lépp ñëw toog bokk ndey bokk baay loolu dafa neex. boo gisee aussi ñu ñoom ñëpp seen biir ñuy kaf di fo ñeen déggul ma wax doom moo ci nekk yow en tant que fédérateur say doom nga fi gis ay say jarbaat ak say rakk mais lii tamit aussi day gën a tax ni football sénégalais ak sport sénégalais ak kii musique bi mën nañu wax ni am nañ loo leen di xaar ci kanam non ñëpp a bég ñëpp a bég lii mooy Sénégal kontaan nañu gars yi booloo nañu bokk nañu ndey bokk nañu bàyyi ànd nañu mais ñu ngi foo quoi lii daal dafa neex